s'est bien passé Sénégal joué na montré na ah supérieur à la Gambie pare wane na ko si jeu bi on dominé et on bon match bi ça a beaucoup impacté quoi ah, ça reste quoi après au fil du temps ñuy gën a joué rek niveau bi day gën a ñëw comme la fois passée Coupe d'Afrique bi kontaan rek waaw ma xam neex na gañe nañ Gàmbi Gàmbi moom na xaaral mooy loolu benn match itam yàlla ko yàlla non Gàmbi kii jàmbaar lañ jëy dañoo daje gaay rek dañoo daje gaynde non match bi ñëw dañuy dóor incha allah bu baax a baax ñoo ko fa teg jeexal la ba Sëñ Bamba. Massa bi xanaa kontaan nañ ak mbéy rek macha allah bëgg nañ Sénégalais yi bëgg nañ lii lañ bëgg quoi bii di ñëw yàlla ñu yàlla may ndam. booy yëpp a nekk ci forme bu nekkoon ruus bi noonu lañ koy dóoree rek waaw mais Lamine Camara macha allah loolu dimanche. sant yàlla rek gaan mooy loolu gaan non gam ñoo ko mën man yaa ko na ne gam dañ koy dóor waaw final rek.